juróom benn at ci bopp EMAS di entrepôt malien yi fii ci fu Fouseynou Soumanoo nag di jox lenge yi Salif Koné. Aujourd'hui, tey maa ngi jóge port ndax administration mooy doxe noonu waaye nag Sénégal daal ak terangaam duma ko musa fàtte. tey Mali lañ fi honoré ndax euh, liggéey gu am solo boo xam ni def nga ko ca euh, port autonome bu Ndakaaru ak euh, résultat yi nga xamante ne jot nga ko fi def loolu bokk na ci li tax tey port autonome bu Ndakaaru am place bi mu am ci àdduna bi maa ngi sàkku nag képp koo xamante ne yaa ngi fi liggéey nga taxaw temb ngir wéyal liggéey ba pour pérenniser ginnaaw relation bu am importance bi nga xamante ne ni mooy dox ci diggante Sénégal ak Mali directeur général bu port autonome bu Dakar ànd ko personnel bi nag daal di delloo njukkal Fouseynou Soumano loolee nag ci kanamu ambassadeur Mali bi ci Sénégal. yaakaar naa ne su Soumano tamit euh, ànd bu woyof la ci li nga xamante ni moom la ñu seq muy jàppale euh, port autonome bu Ndakaaru fexe ba yenn dogal yi nga xamante ni moo ñu jàppale ci lu bëri ñu mën ko wéyal Euh, teg ay plan ba ci sax euh, conseil d'administration. Je voudrais dama bëggoon rek euh, en tant que ambassadeur remercier la ci lépp lu nga xamante ni yaa ngi koy andi Mali ak sa doxalin tamit loolu jëm ci diggante Sénégal ak Mali soxal seenub lëkkaloo. xew mi nag daal di am ci ambiance bu neex ki fi nekkoon nag président bu EMAS nag daal di jot ay kado ci loxo autorité portuaire yi ñoom ñee itamit dellu ba tey di ñaanal toogub jàmm kii di saalif ko ne bi nga xamante ne ni jël na place am